seen émission bu mag baa ngi noonu cant gi boo dee xaadir baa ngi murit baa ngi ngay tijaan laayeen wala ngay ñaseen sunu mbokk waa kër Bou Kounta Ndiassane ba ci sunu mbokk ibaadu yi sax ñu ngi ci biir premier jour koor la ñu koy tàmbali altine ba aljuma seen émission bu mag bii di émission cant gi di ngeen ko am sur la 2STV en direct kon nag gars yi rendez-vous bi benn la ci weeru koor gi la fii ci la 2STV le retour de Omaro mu Cheikh Béthio Thioune dina tàng dina neex